ginnaaw tiib dëkk bi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bachir def na fi ay fan ci alxamis ji dëppoog le 28 novembre 2019 doon benn fan ci rabiul awal di rakki gàmmu atum 1441 ginnaaw gàddaayu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Mountakha Mbacké Bachir bàyyeekoo na tiib dem ci beneen dëkk boo xam ne moom lañ naan Mbul Kayel Mbul nag nekk dëkku Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir di dëkk boo xamante ni sëriñ bi bëri na lu mu fiy ñëw di dëkku boppam dëkku boppam bi nag sëriñ bi am na fi daara yor fi ay ndongoy tarbiya di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim dëkk bi nag sëriñ bi mu ngi ko teg ci loxoy doomam di sëriñ Basiru Mbàkke Mbul moom sax bi sëriñ bi agsee moom moo ko teeru ànd kook mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak taalibe yi sëriñ bi nag bi muy ñëw ci mbul ànd nag mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoom la àndaloon dem ca tiib ak mbooleem ndongoy tarbiya yi nga xam ne saa su ñoo koy jàppale ci liggéey bi jëwrin yit noonu lañ ko teeloo ku demee ni ki Serigne Mountakha kan nekk jëwrin ci kër Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir ku ne xam ko ci taxawaayam ci mbooleem loo xamante ni liggéey la mu jëm ci kër Serigne bi rawatina ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Mbul Kayel xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ci dëkk bi nga xam ne moo di Kayel dana fi am ay fan ni nga xam ne noonu la koy defee at mu jot moo tax daayira yi ak mboolem kilifa yi fi lañ ko fas yéene fekk di ko ziyaara noonee ñu ko àndee woon ak yéen ca tiib incha allah fii ci mbulkayel lépp loo xam ne bàyyeekoon na fi ci information jëm ci xalif général des mourides wala ziyaara incha allah daañu leen ko baaxee bismillahi fii niin ak daara yàllaw sali baqa abi bi fiq yàllaw yaa man أولياء من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أيوا برامتي ألا ألاقي ضرا منك يا الله